tant que jàngale diina nag ci société bi nga xam ne dañ gis ni xëy na valeur yooyu amatul lan nga ciy yëkkati li tax ma laajaale ko dama doon bañ tontu erreur parce que fa ma déggee woon bokk la fi nga mujj leere dama defoon Balla Gaye dafa bañ man foofu laa doon xalaate mais loolu mas naa fekki nit ku faatu ñu woo benn nit ne ko kaay jullee ko mu ñëw tiim ko gis ay nit yu ko wër mu ne ñii daayira lan la ñu ne daayira sàngam mu ne duma leen jullee billaahi ilimaan ji noonu la demee jullewu la dee na bu demee ci kanam yàlla yàlla ne ko sama jàmbi lu la jullee congaan yi xew dafa bëri de yi kenn mënta wax dafa bari maa ko fekkee ca lañ commencé ñoom mbooloo mooma di jullil seen bopp seeni néew li am na fi kon Double sunu papa la liñ ciy jàngee kay mooy loo na xam ne ak Balla Gaye fi papa Double Less mujj jëm ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sedd la kon nañ bàyyi xel seen ëllëg xam ne fi ñu toll papa duubalis toll woon na fa dama daan déglu rajo defe naa naar alaaji naar du naar sàmm du moo yoroon làmb ji Ablaye jërëjëf papa Ablaye naar sàmb duubalee song na ko dóor na ko daanu na toog na ca mbàq ga papa dubalees bañ daje mas nañ daje ma ne ko papa man mën a toomaa daan mu ne ma dama am màgget <laughs> seetal loolu ku toll woon ci koo dóor mu jaaxaan nga dem ba mënatoo boot nit booy jóg dañ lay yëkkati ana doole ja ana talga ana man nga ana lépp zahabal kullu lépp dem na Modou Lo jërëjëf Balla Gaye jërëjëf siggi leen di gal yéen mbeur yep siggi leen di gal yéen senegal yi yëpp siggi di gaali aduna bi yep waye xam leen ne fi mu mujj ngeen ni mujj ko leen ko wax moy deug ko leen ko waxul moy deug yéen ñep ku ci ne am nga bes boy njëkk yendu bammel am guddi go fay njëkk fanan kon sen papa mbeur daan beure nelaw donte ah way parce que Balla bu di ut dara Modou Lo di ut dara Iran di ut dara man mas na maa bëri di seetaanoo ko ngeen ko génne leen ko mu ngi ci net bi uh-huh. waaja lan ma def waay ji moo soxor nu mu tuddati Balla Diouf billaay Balla Diouf yaa soxor men moo ma man la ma def sa xaw ma ko dama ñëw sama yaram wi di mitti mitti goo xam te dama doon tourner euh, tabaski bi ca daral ga moom dafa am daral foofu ñuy tooñante nag songo waaye lam ma def xalifa loolu xaw ma loolu métti na bal bal sériwul quoi bal jub sériwul pour wax la rek yooyu boo ci jaaree ngeen bokk di ut mais mënu leen ànd mm-hmm. ay adversaire ngeen di doon kii da laa bëgg a daan nga bëgg koo daan loolu rek la ku ne da nga bëgg a ndam ci sa kaw morom mais après lool bu weesoo nag dëj dëj la dee dee la ngénte ngénte la takk takk la ngeen fekkante su ngeen demee ca géew ba nag amatul maslaa kii rek ay feem rek la ku mën a dóor mu daanu dóoral ku mën a kott kottal su ngeen jëlloo yéen a xam waaye bu ngeen paree ca làmb ja nag ngeen dellu ci mbokk gi nag moo waral Modou Lo dem Modou Lo sañu koo bañ def Taïba njaay la dëkk xam na ma bu baax wax ko ko Taïba Ndiaye la dëkk góor gi Mor njaay mooy maamam maam sob Soob Ndiaye baax firi naa fa alxuraan quatorze ans treize ans te Taïba Ndiaye sëñ Abdou ma boole woon ñoom maam Matar ku yéeme bi mu faatoo dañoo yëkkati si jaadam fu ne ay millions fa ne wallahi maa dëkkoon ak maam Matar néega ma ngi nii sama néeg ngi nii ñoo sësalo fanaan ba koor gi jeex bés bu ne ci jàkk jële lay jullee sëñ Babacar waxoon ne Matar bokk naa ko te lu ma bokk du wadd loolu la waxoon nee na Matar Soom Njaay bokk naa ko te lu ma bokk du wadd moom bokk naa ko ba pare moo demoon ba waroon dem euh, coow lu am mu dem ci yoon jaar ci sëñ Babacar te bu yeggee dañ ko war a arrêté tëj laa wax mu tàggu sëñ Babacar dem sëñ Babacar ni ko boo woon ñi jaar fi mu ne ko si dañ may tëj di sëñ sëgg ba muy dem mu ne ko boo nga jaar fi mu ne ko xanaa si déggoo li ma wax su ma demee dañ may arrêté mu ne ko boo wëññi koo nga jaar fi maam Matar moo ma ko nettalil kenn waxuma ko nee ma ñëw toog ci biir salle bi nit ñi ni ci siège yi toog kii àtte ne tëll ne ana Matar Soom Njaay benn waaye ne bërit ne ko maa ngi mu ne ko yaa def nangam mu ne waaw ak nangam mu ne waaw mu ne waaw mu ne monité dugal ci kaso ba maam Matar ngi toog ñu monité waa ji dugal ci kaso ba mu daw jaar ci sëñ Babacar sëñ Babacar ne ko bul yeggali Maodo dooy def yu ni mel Cheikh Al Hadj Malick ko def defuma ko mu ne ko tariixa bi dafa am ay rawxaan mbindee fii fi ne ñu mel ni yéen buñ leen naree tëj rawxaan bay jël seen place soo demee ca kaso ba doo ko fa fekk dem na mooy maami Modou Lo Modou Lo benn kii mooy maamam xam naa ko di moom it nag xam na ma foofu laa yem rek xam na ma daal mm-hmm. bu ma déggee ne xam ne xam na ma